loi boobu nag wax dëgg yàlla euh, dama bokk ci benn camp mooy euh, suñu coalition mooy xalifa président man xalifa Sall lay jàppale si campagne bi euh, dañoo ne ñun d'accord ñu ci te sénégalais yu bari d'accord ñu ci parce que nag nañ waxante dëgg li xew Sénégal kenn am na mos na fi am de xaw ma kañ waaye bii am depuis 2000 mars 2021 lii ñu dund fii dafa laaj ñu leeral ko dafa laaj ñu leeral ko buñ ko leeralul ah ne ba effacé nañ ko nii dina fi juraat leneen lu ko raw kon nag tey waa dem ne d'amnistie bii de li ma yaakaar mooy képp ku fi falu danga ko war a dindi ñu leeral ba pare ngay doog ne amnistie ndax mënuloo baale loo xam ne kenn xamul kan moo ko def waaye kan yi dem yaay yi ñu ngi nii 8 mars mais est-ce que yaay yooyu tey seen xol yi seeni doom man gis naa ci kaay yu bëri mais dañu ko war a leeral li xew ci réew mi dafay jéggi dayo donc loi d'amnistie bii nañ waxante dëgg warutoon man président Macky Sall dafa waroon a dem bàyyi keneen ku ñuy fal su dikkee ñu xool loola nu mu demee ak lu ko jur ñuy doog a amnistie suñuy baalante suñu biir ñu baalante kenn mënul ñaaw lu baalante waaye na fekk ñu xam ne mbay sàmb wala Hélène moo tooñ mbay sàmb Hélène Tine ñu xam ne tooñ na ba ñu ne ko tooñ nga mbay Samb ñu ne ah dañ koy baal su boobaa mbay sàmb mën a nangu ne tooñ nañ ko waaye yow war xamoo xawma ma ku tooñ nga ni nañ baale loolu moom loi bii moom problème bu rëy a rëy la ndax lu mat plus de quatre-vingts morts bu ñu dajalee li xew dégg naa depuis depuis mars booba ba léegi mais dafa ëpp ñaata blessé ñaata nit lañ tëj kaso yàq seen liggéey seen carrière seeni i njaboot tumuranke ñu ne acca nañu ko faas nii rek mais lii dafa dafa tey xel dafa mel ni ñoom daal seen bopp lañ bëgg a baal lan lañu def nag ba bëgg a baal seen bopp loolu lañ war a xam waaw